ñu dikkaat ci plateau bi wëyal matinal Allô Sénégal émission bi leen di gunge say su ngeen di ci ànd ak équipe bi yëpp ma dalal Kajoor mu ci plateau bi Kajoor maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. maa ngi lay nuyu mbokk yi xam ne ñoo ñuy teewlu soo ba dalal ak jàmm Kajoor Cissé la revue web dañ koy tàmbalee ak arrestation wu euh, rappeur bi nga xamante ni moo di Dof Ndeye. Seneweb moom moo dal di euh, xam li lu ni mel moom nag ginnaaw ba ñu ko euh, tegee loxo moom Dof Ndeye euh, gendarmerie brigade territoriale bu Kaolack daal di koy def tey jii nag ñoom ñu ngay wër ki ko doon filmer jamono jëmuy jàmm ki nga xam ne mu ngi tudd Bee fay Uh, ginnaaw ab concert boo xam ne defoon na ko mu ne kooku nag dafa mu jiñ ko ne moom moo toj Euh, otoom veeru euh, otoom ba tax nag mu jam image yi wër na nag euh, toile bi loolu moo waral ñu teg ko loxo léegi ki nga xam ne nag moom moo doon filmer scène bi moom la ñuy wër jamono ji ndax li ñu koy toppee mooy assist non assistance à une personne en danger muy maanaam seetaan nit bu nekk ci diggante dund ak dee nga bañ koo jàppale loolu yoon da koy tere moom la ñu koy toppee ñuy wax nag ne ba léegi kenn euh, identifié wu ko waaye euh, gendarmerie ñu ngi koy euh, wër jàpp leen ne moom Dof Ndeye jamono ji yoon daal na koy teg loxo ndax dafa bëggoon fajal boppam. am ku mu jiiñ ne moom moo toj otoom. Mhm. Euh, mu jamati ko nag jamati ko ba euh, kooku euh, mu sonnoon génnul àddina gaa waaye sonnoon na ba léegi moom nag loolu waral ñu daal koy teg loxo. ñu dellusiwaat ci li nga xamante ni moo di Covid au Sénégal docteur Abdoulaye Bousso mu ciy àntu. la mu wax nag mooy nañu fexe rek ba bañ yóbbu mbir mi fa mu yeggul. ca Dakaractu la doon àddoo lu ni mel ndax nag euh, si euh, téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti ujaaj yi nga xam ne saytu nañ leen euh, lii di jàngoroy mbas mi fekk nañ ko ci lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ujaaj mu waral nag autorité yi nga xam ne ñoo gàlloo wàllu wér yaram daal di tàmbali jël ay matuwaay di ci wax di ci àddu ba ñëpp daal di ci àddu loolee jur coow ba tax na nag kii di docteur Abdoulaye Bousso euh, moom la mu gis mooy daanaka mbir mi fa ñu koy yóbbu agu fa ba tax mu daal di sàkku nag ci autorités yi ngir ñu bañ a rek euh, daal di euh, tiital askan wi wala yóbbu mbir mi ba fi nga xam ne yeggu fa ndax nee na situation la boo xam ne tàmm nañ koo gis saa su ne bu nit ñi ajee ba ñëw euh, dafay bëri ci ñoom ñoo xam ne dañuy am ay jàngoro yi ñeel wàllu respiration ndax tàngoor bi foofu buñ ci ndax dañuy nekk foo xam ne ay millions nit ñoo fay nekk ci anam woo xam ne dafay xat dëkkuwaay yi day xat ak yu ni mel euh, buñ ci yokkee tàngoor boo xam ne bu jéggi dayo la forcément dafay am lu muy def si euh, nit ñi donc chaque fois bu ñu demee ba ñib si day am lu ñuy indaale ci ay jàngoro moom nag lu mu sàkku mooy ñu bañ a nekk dëkk koy yóbbu fenn fii ñu fexe rek ba euh, baax na nuñ leen di saytoo. Mhm. ñu gën leen toppatoo waaye itam sàkku na ngir askan wi bañ leen euh, beddi. Mhm. di leen joxoñ ndax loolu moom mooy si stigmatisation bi nga xam ne moom la alerté ñu fexe rek ba ànd ak dal ndax euh, dara beesu fi suñu sukkandikoo ci li mu wax ndax chaque fois noonu la doon demee bile yoon. test Covid la ñu détecté waaye daan nañu détecté yeneen jàngoro yoo xam ne aussi dañ koy gérer euh, prendre en charge ku nekk dem yoonam donc ñu ñoom itam ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge foofu itam sàkku na ci ñoom ngir ñu moytu gën a def attention par rapport ak mm. volonté bi. am na solo Kajoor ñu wax ci bi mu mel ni gouvernement bi mu ngi mettre en demeure les les meuniers. waaw ñoom dañu xëy ñiy defar euh, farine yi. Mm-hmm. ni ki démb ñu ko doon waxtaanee fii ne ñoom dañoo xëy banque seen yoo xam ne duñu compagnie mburu bi euh, arrangé wu leen du gisuñ seen bopp donc dañuy téye seen loxo bañ a defar farine mu mel ni démb itam euh, gouvernement bi dafa génnaat mel ni ku leen di xupp ndax euh, la mu sàkku mooy nañu dellu dem defaraat seeni farine ba pare jaayee ko ci prix bi nga xam ne moom la état bi daal di fixé lu ko mooy état bi nee na dina jël responsabilité am euh, ndax li mu bëgg mooy fexe ba askan wi jote ci li nga xam ne moom mooy aqam ak yelleefam ci wàll wi euh, su ko defee nag ñoom euh, bañuñu jël benn mesure boo xam ne mhm. dina tax ba loolee di seen mbébét ñu mën cee addu looloo tax mu ñu jàpp ne xupp la boo xam ne teg nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy mëñee muy defarkatu Euh, farine yi ñoom nag ñu tënku euh, ci ab association bu ñu duppee association des meuniers et industriels du euh, Sénégal. ñu jeexalee ko ak Italie en huitième de finale. Mhm. waaye Espagne itam c'est ça loolu ci ay ponk la rek yu ñu jukki. si li nga xam ne moom mooy euh, euh, euro 2024 bi nga xam ne jamono ji ma ngay daw Italie moom jamono ji deuxième place la nekk ci poule bi mu bokk moo waral nag mu qualifié ngir euh, mën a bokk ci huitième de finale yi moom Italie nga xam ne édition bi weesu moom moo ko jëloon moom mooy tenant du titre dina bokk nag ci huitième de finale yi waaye euh, météo na lool laata mu cay egg ndax euh, Croatie bi nga xam ne moom la doon euh, jonganteel daanaka jongante nañu lu yàgg laata muy muy muy jël raw gàddu gi ndax dem jëlul sax raw gàddu gi ndax dem nañu ba temps additionnel moom ma ne woon 1 à 0 ci temps additionnel bi la égaliser égalisation boobu ñu égaliser 1-1 nag moom moo waral. Euh, Italie dal di euh, qualifié ndax euh, daf koy may mu nekk ci ñaareeli place su groupe B bi moo waral mu qualifié li nag France France tam daal nay qualifié donte sax dese na ko benn match boo xam ne tey jii la ko war a fubal ci di kanam ci digganteem ak Pologne waaye match boo xam ne doxoon na démb ci diggante Espagne ak Albanie Espagne jële fa ndam 1 but à 0 moom moo waral France daal di euh, qualifié ndax euh, moom it euh, jamono ji dafay nekk rek ci huitième de finale yi ak ñeenti poñ yoo xam ne daal dina koy am mu tax mu mën a bokk ci li nga xam ne moom mooy huitième de finale yi en attendant match boo xam ne tey dina ko am contre Pologne quel que soit le résultat du tee mu mu bokk qualifié voilà incha merci Kajor ñu jaajëfal euh, bu baax a baax alors arrestation Dof Ndeye euh, caméraman bi ki daan ki filme ki doon filme scène bi ñu ngi koy wax je pense mhm. que si tout à fait normal ah, parce que yaakaar naa ni yooyu noonu dafa bëri ay kaala yu nga xamante ni dañ koy gis dafay bari lool nit day nekk ci situation di waaja de yow ngay ut loo filmer ak loo partage ci réseaux sociaux yi yaakaar naa ni balaa ngaa nettali nga dimbali nit ki donc kooku aussi ñu jëm ko ut teg ko loxo baax na waaye dina yee ñi nga xamante ni bu yenn situation yi amee Euh, dinañu xam ni ñuy comporté woo laataa ñuy jël seen téléphone mm-hmm. ñu assister nit ki nga xamante ni dafa nekk en danger. je pense que sax ki ñu waroon gën a mën a assister parce que boo xoolee. Mm-hmm. je sais pas ndax ñoom ñoo àndoon ñi muy parce que rapport souvent suy génn du génn moom kese ñun yàgg nañ di dem concert. Mm-hmm. Euh, gang lay àndal groupe am lay àndal. et donc ñi ñi njort nañ ne euh, si groupe am la bokk ba léegi donte kenn identifié wu ko li gënoon sage mooy le temps muy filmer mu fexe ba artiste am bu bañ def erreur. parce que kenn xamul euh, Dof Ndeye ci yan état d'esprit la nekkoon ba muy topp c'est-à-dire que moom dinañ ko toppee xam nga euh, li di coup et blessure am na mais mais. Euh, tentative de meurtre da lay def foofu noonu mm-hmm. parce que boo jàmmee ba ba nit ki gaañu sax nga arrêté mais yaa ngi topp xaw ma na gis ngeen image yi xaw ma ngay toppatoo ba mu daanu nga fu mu daanu nga topp di jam jam jam ah. waa ji débattre yàlla moo ko yàlla moo ko dimbal rek ba mu rëcc mais le gars il était prêt à le tuer ah. parce que toj na sa vie déjà yow yow moom nga jiiñ na moom moo ko toj te te téye ko te leeru ko déjà mais comme téye nga ko ba pare kay yóbbu ko ci yoon artiste du n'importe quoi ngay def ci ci ci gis nga man mën naa def dara. Mhm. ñu baal ma. Mhm. parce que walla ñu bañ cee wax ndax li ma doon maanaam. du ma artiste du ma du ma aw ma benn am euh, ay nit toppuñu ma mbooloo wala dara dara duma porteur de voix wala yenn yi mais artiste boo xam ne yow da ngay ñëw sur scène am ay fan am tout le temps nga nekk di di kii am na loo xam ne da ngay am retenue munuloo mhm. topp nit comme ça et puis mhm. le ñi koy filmer muy muy muy affirmer waaw maa ko jàm parce que dafa nangam nangam affaire yooyu et le gars di filmer mhm, ki filmer aussi j'espère que dinañ ko dinañ ko teg loxo parce que euh, mënoo am sang ngay nit ki man kooku sax euh, cent francs daf ma daf ma daf ma impressionné munoo nekk di filmer euh, donc genre bu fekkoon ne le gars rëcculoon euh, nit dof moom il allait assister live and direct nit kuy dee en fait mm, mm. ku ñuy rey ku ñuy jàm ba mu dee yow tu as le cran tu as le, tu courage nga nekk di filmer loolu quoi en fait mm. c'est c'est hallucinant doy na waaw xëy na Dof Ndeye rapport la artiste la mais de manière générale Euh, nit warul fajal boppam dëkk bi dëkku yoon la yoon mu ngi fi police mu ngi fi gendarme gendarmerie mu ngi fi donc cas yu mel nii euh, bu leen agir sous le poids de la colère ba mën a def lu nga xamante ni ëllëg da ngeen koy daal di réccu boo nit ki bu meree du fajal boppam nit sax du fajal boppam hmm. yoon am na fi donc nit ki la tooñ yóbbu ko ci yoon yoon def liggéeyam boo fajalee sa bopp rek affaire bi dafay mujj nekk tooñar bi te bu boobaa di nga créer sa bopp ay problème maara day hmm. euh, bu ci yàlla tegul loxo mën naa ëppi beneen bi dinañ ci ñëw ak ki nga xamante ni moo di suñu gan. Mm-hmm. waaye retour euh, Covid 19 itam yaakaar naa ni dundoon nañ ko. mu métti woon lool gënoon na fi métti donc je pense que à ce stade là war nañ ko mën a gérer comme ni ko docteur Bousso waxee. moi je pense qu'il a bien fait sax mu génn parce que mm-hmm. Sénégal tam parfois dañuy dañuy ëppal ci yenn situation yi jël ko envenimer ko yóbbu ko ba mu créer benn psychose. Euh, parce que nit ñi tamit euh, feebar la boo xam ne tiitaloon na nit ñi les gens étaient euh, dans la peur total donc du coup bu ñëwaatee ni ah lu toll ci et on on nous a dañu jox chiffre 60 pour cent yi imaginez xam ah, nga day rëy si si si lii ñu la 60 pour cent yëpp dañu am Covid. Mhm. donc ñu ñëpp ñëw Sénégalais yi dañuy nekk ah kon Covid bi dugg si waat na fi nit ñi nekkaat fi dugg génn euh, kii donc moi je pense que c' est bien au euh, docteur euh, Bousso ni li mu def moom. mooy au moins ça va apaiser les esprits. ñu xam ne que c' est c' est juste des une situation ba xam parce wax na ko aussi peut-être je l'ai pas sax mais nee na ci explication aussi nee na. Mhm. est ce que gis nañu. Euh, en Arabie Saoudite ñu déclaré foofu crise sanitaire amul foofu crise mm. sanitaire mm. donc ça veut dire que c'est tout à fait normal li ñu ah, nekk di dund nii yaay bu waa beaucoup de morts ñoom lu ñu lu ñu wax noonu tàngoor bi la te mm-hmm. ñoom communiqué nañ ci donc bu fekkee nag yow tu as des anomalies yoo xam ne ñàkk wérgu yaram la boo xam ne loolu la aussi dañ koy traité rek après nga jàll ci leneen donc c'est pas la peine que waaw corona corona après mu duggaat fii mettraat nit ci ci yenn psychose yi c'est pas la peine mu ngi noonu moo tax man la dundoon nañ ko mu gën a metti donc à ce stade nañ ko mën a gérer ah avec euh, philosophie euh, la France qualifiée la on se posait la question que valaient justement les Bleus sans Mbappé euh, France daal di nay qualifié. naka nga ko gisee. c'est tout bénéf pour ñoom bon euh, il continue ah Mbappé il, il va il va il mais euh, ñoom euh, déjà loolu moo ci ne parce que déjà dese na leen benn match. Mhm. avant ñuy dem seen troisième match sax euh, qualifié nañu donc ça va ça va se poursuivre et puis ils ont mhm. le, le leur peuple derrière. <laughs> ils font tout pour que ñu mën ci sori mais bon. mais ah, nañ def tout ba gagner seen match seen match contre Pologne. waaw moom c'est rassurant loolu moom mooy ça ça permet de rentrer. si si phase huitième de finale avec plus de sérénité. loolu la rek donc ça va être ça l'enjeu mmh. voilà mais comme qualification bi c'est déjà acquise mmh. donc euh, le reste maintenant c'est de gagner pour pour pour pour être en en en sécurité et puis dalal aussi xelu. supporters euh, voilà les supporters. tout à fait merci beaucoup Kadior Cissé ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci xibaar yi gën a fës ci web bi 8 heures passé de 47 minutes euh, dañu leen di proposé ngeen seetaan benn clip mbokk yi juste après ñu dikkaat ci plateau bi daal di wóyal suñu aventure matinale.